ñu bind fee ci kanam istam sakkatu jàppandu naa bil xaq ci dëgg xalimtu xam naa bi najaax yi ci sama at mi fastab bu shartu te ma bég ñu bind ci kanam istab bu shartu bég naa bi najaax yi ci sama at mi xul waxal alxaq dëgg wastam sikk te nga jàppandu bii ci moom ñu bind ci kanamam istam sikk jàppandul bil xaq ci dëgg del wax dëgg te di ci moy bu baax a baax laa tey as bul naagu wastabshir na nga bég ñu bind fee istabshir bégal wala tey as te bul naagu laa che addi dara kastimsaakil mar i di mel ni jàppanduk cam si bil xaq ci dëgg nit ki mooy ci dëgg bañ koo bàyyi dara melu ni ñu bind ci kanam istimsaakuka sa jàppandu bil xaq ci dëgg fadilatun ngëneel la ajaba nii yéemuloo na ma istibshaaruka sëg bég ñu bind ci kanam istibshaaruka sëg bég ajaba nii yéemuloo na ma isa alimta ndéem xam nga fa amal jëfeel bi ilmika ci sa xam-xam ñu bind ci kanamam imal jëfeel bi ilmika ci sa xam-xam taqabbal nangul al maarufa njëkk la washkur te nga sant ñu bind ci kanam ushkur santal man ka nga xam ne sanaxa def na al maarufa njëkk la tanaasa na nga fàtte fàttelu ashara aywa wa dukur te ngay fàttaliku alxayra yiw wa ñu bind ci kanam udkur del fàttaliku alxayra yiw wa albaas ida ta amalta boo seetantalee al amsilata misaaliya fil qismi ci xaaj ba al awali bi aji jëkk raayta nga gis ne ànd nag kulla misaali naka bépp misaal yesh tamit dana làmboo xalaa fi alin ci fexal maadin bu nekk maad aw amrin wala lamar aw masdarin wala masdar wa kullu waahidin te kenn ku ne min haasihi ci yile waaqiyun aji tàbbi la fii wasatil kalaami ci digg wax ja wa mabdoon tey lu ñu tàmbalee bi xamsatin ci xamsa wa isaa qara'ta ndem jàng nga ku la misaalin bépp misaal raayta nga gis ne ànd ka naka yow laa tantiqu doo tudd bi haadihi lxamsati gi li am sa fii asnaa'il qiraa'ati ci biir njàng ma ba lif nekk tusqituha da nga koy rotal boo xoolee ci xaaj bi njëkk bi mooy li féete ndeyjoor ligne bi ci ndeyjoor a nga gis ne misaal mu ci ne am na fixlul maadin wala boog filu amar mbaa boog masdar waaye nag fiilul maadin ba ak lamar ba ak masar ba daa nekk ci biir wax ja ba noppi nag baat ba tàmbalee am sax moo xam maadin ba moo xam lamar ba moo xam masar ba boo xoolee ci ndeyjoor amu ca kenn ku nekk ci njëlbeenu wax ba ku ci nekk rek ci ñoom am na lu ko jiitu ba noppi nag njëlbeenam nekk am sax boo seetloo nag yooyu jamono am sa googu doo ko jàngale benn yoon danga koy rotal mel ne nekku fa ci misaal fanta baxtu jooju lay wax naa intabaha fihlul maadin la nga ne samitu darsa fanta baxtu doo wax fa in tabaxtu ngay wax rek fanta baxtu nga ne jarabtu sadiqa wax tabartuhoo doo wax wa ix tabartuhoo am sa bi doo ko jàngale fanta bi doo wax fa in tabi ida sadaqta faxtabir doo wax fa ix tabir surirtu min intibaaxika doo wax min intibaaxika ngay wax rek min intibaaxika kee itam daa bëgg nga ne bil ixtibaar yi waaye na wax ji gën a wóor mooy al moom bu àndeek am sa dañuy jàpp al ji muy baatu boppam ñu jàngale am sa ga wax bil ixtibaar loolu moom moo gën a bare maanaam ñu wax nag bil ixtibaar yi noonu rek bañ bañ woyofal am sa gi bu dee ci loroo yi mbaa lu ko nuroo day wane nag boo xoolee ci lim bi ci ndeyjoor yenn yi dañuy fii lu maadin ni ki intabaxtu ak ixtabartu yenn ya di lamar ni ki intabi ixtabir yenn ya di masar ni ki minin tibaaxika ak bilix tibaar nga seetlu ne ku ca nekk ba mu nekkee ci biir wax ja am sa ba ko tàmbali jàngale woo ko wa ida nazarta boo xoolee ila am filatil xismi jëm ci misaali xaaj ba attaani bi aj ñaareel raayta nga gis haadihil afxaala yi lay fiixal wa haadihil masadir ak yi lay masdar nafsaha seen jëmi bopp fi awwali kulli jumlatin ñu nekk ci njëlbeenu bépp jumla wara ayta te nga gis ne an naka naka yow ida qara'taha boo leen jàngee na taqta nga tudd bil hamsati ci hamsa ga walam tusqitha te doo ko rotal fa hadhihi al hamsatu gi di am sa idan kon la tasqutu du rot illa ida kaanat dara dem nekk na muttasilatan di aji jokku bi shay'in ci dara wali haata ngir lii tusamma def na ko tudde hamsatal wasli am sa jokku ga nee na fixal ya nga waxoon ñi féete ci ndeyjoor nga wax ne bay nekkee ci biir jàngaalewu am saga mu ne xool nag ci càmmooñ boo xoolee càmmooñ muy fixal ba muy mastar ma dañ koo indiwaat nu mu ñëwee woon ci liñ ba ca ndeyjoor waaye nag la ñu wutee mooy fii ci càmmooñ moom dañoo jékki-jékki tàmbalee ci fixal ba mbaa mastar ma mbaa lamar ba waaye nag dara jiituwut fixil maadin ba mbaa mastar ma mbaa lamar ba jamono yi nga xam ne nag moom am sagaa nekk ci njëlbeen wax ji dara jiituwu ko boo ko seetloo faaw da nga koy jàngaale ci takk-takk kon am sa gu mel noonu bu nekkee ci biiri wax nga di ko jokk ci dara da nga koy rotal bañ koo jàngaale te nag bu fekkee da nga ci tàmbalee wax moom da nga koy jàngaale am sa gu mel noonu moom la ñuy wax am sa waslu nga xam ne jamono yi jokk ga dañ koy rotal bañ koo jàngaale bu fekkee dañoo tàmbale ci moom nag jàng ko wér loolu moo tudd am sa waslu wa isa rajaata ndem dellu nga ilal am silati jëm ci misaal ya as sitatee juróom benn al ula ya di way jëkk raayta nga gis ne anal kalimaati naka baat ya al mabdoo ata ya di ñu tàmbalee bi am satil waslu ci am sa waslu fiihaa ci ñoom xiye ñoom maadil xumaasi benn muy maadi bu bàyyikoo ci juróomi araf aw amruhu wala lamaram aw masdaruhu wala masdaram wa ida taamalta boo setantalee al amsilata misaal ya assitata yi juróom benn ak taaniyata yi aji ñaareel raayta nga gis ne ànnal kalimaat naka baat ya al mabdoo ata ya dañu tàmbalee bi hamsatil wasli ci am sa waslu fiihaa ci ñoom xiye ñoom maadi sulaasi yi mooy maadi bu nekk sudaasi yu maanaam doon juróom-benni araf wa am ruhoo ak lamaram wa masdaruhoo ak masdaram nee na boo dee xool ci ndeyjoor muy ligne bi ci ndeyjoor fukk ak ñaar yi nga xam ne ñoom nga njëkk a jot da nga koy def ñaari xaaj juróom-benn yi féete kaw nga ber ko ba juróom benn yi féete suuf su boobaa da nga seetlu ne baat yi ca tàmbali am sa waslu ci boo dee xool ci juróom benn yi ca kaw koo ci gis rek benn mu nekk fihlul madin bu nekk juróomi araf mbaa muy lamar boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci maad yi bu nekk juróomi araf mbaa muy mastar bu bàyyi ko ci fihlul madin bu nekk juróomi araf te boo xoolee fanta bëxtu am na am sa waaye dafa nekk maadi bu juróomi araf waxta bartuhoo bi ñu ci tegit noonu boo xoolee fanta bi ak faxtabir inta bi ixtabir kenn ku ci ne day lamar bu bàyyikoo ci xumaasiyu bi nga ne minim tibaaxika intibaaxika jooju ak bilix tibaar yi ba toppee ni waxee ba ñu jàngale am sa bi yooyu yaar dañuy masdari xumaas yi kon juróom benn yi nag yu njëkk yi foofu lañ yem boo xoolee boo xoolee nag juróom benn yi ci sës daal di mottali fukk ak ñaar da ngay wax ne koo ca xool mu am am sa benn muy fixilul maadin bu nekk juróom benn araf niki istamsaka ak istabshara wala boog muy lamar bu bàyyikoo ci fihilul maadin bu nekkan juróom benni araf niki istamsik ak istabshir wala boog maslar moo xam ne dafa bàyyikoo ci fihilul maadin boo xam ne juróom benni araf la woon niki kastim saakil mar'i ak ahjabanis tibshaaruka istimsaak ak istibshaar kenn ku ci nekk day masarum fihlul maadin bu nekkan juróom benni araf te mooy yi nga weesu léegi rek muy istamsaka ak istabu shara loolu bëggoon nga seetlu ko waxinda nazari fa xool ga ilal am si jëm ci misaal ya al talaasa ja di yët al baaqiyati aji des tara da nga gis ne amal kalimaat naka baat ya al mabdo ate yuñ tàmbalee bi am sa ci ci am was lu fiihaa ci ñoom xiyee ñoom amru sulaasi yi mooy lamari sulaasi yi te walaw an naka donte naka yow tatabaata toppatoo nga ashbaha haadihi al afaali way nuru yi lay fexal wa haadihi al masaadiri ak yi lay masdar fil kalaami ci wax ba al arabi bi ko ju arab dara ay kon nga gis ne an al hamsat naka am saga fi kulli maadin ci bépp maadin xumaasiyin buy xumaasi wa sudaasiyin ak buy sudaasi wa amrihima ak seen lamar wa masdarihima ak seen masdar takkoon dana nekk am sata waslin di am sa waslu daa iman faw nee na boo delloo ci yetti misaal yi nga xam ne ñoo des da nga gis ne baal yi ca tàmbali am sa waslu kenn ku ci ne day lamar buñ tëggee ci fixlul maadi bu nekkoon sulaasi yett yooyu des nag mooy fa amal na nga jëfe bi xilmi ko jooju mu wax muy benn ak washkur jële mu daaneele bi mu ne taqabal maaroof washkur jooju washkur jooju mooy lamari sulaasi bàyyi ko ci shakara fa amal jee bàyyi ko ci xamila ak wadukuril xayra udukur jooju moom it lamari zakara sulaasi yi ci la bàyyi ko mu ne nag boo seetloo da nga gis ne yett yoo ku ci nekk am sa ba ca nekk am sa waslu la ndax fa nga ko indee ca ndeyjoor mu nekk ci biir wax ji jàngaale woo am sa ga te fa nga ko indee càmmoñ nag nga tàmbalee ci wax ji moom da ngaa jàngaale am sa ga ndax boo nee fa amal doo wax fa iamal bi xilmika lam jàkkaar loolu nag ci càmmoñ iamal da ngay jàngaale am sa gi ndax la nga fa tàmbalee fee itam taqabal maaroof washkur néewoo wa ish néewoo wa ushkur néewoo wa ushkur waaye fee da nga ne moom ca tàmbali ba ushkur man sanaxal maaroofa wa dukuril xayra it néewoo wa uddukuril xayra ndax waaw gaa tax waaye boo fay tàmbalee moom ci am sa gi dëgg-dëgg da nga koy maas ne uddukuril xayra mu ne nag boo delloo woon ci làngu arab di ko seetantal bu baax a baax da nga gis ne mboolem fi xal yi mel nii ak seeni masfar bu dikkee ci waxi arab yi foo ko fi gis rek am soga bu fekkee daa nekk ci fihlul maadin boo xam ne day juróomi araf mbaa juróom benn mbaa boog am sa ba nekk ci lamar ju bàyyikoo ci xumaas yi mbaa sudaas yi maanaam daal lamari fexel bu nekkoon ca maadi ba juróom ba juróom benn ak mastar mu yëpp boo ko seetloo am sa ga cay nekk am sa wasu lay doon kon mën ngaa takk rek ne bépp fexel boo gis mat juróomi araf mbaa juróom benn rek am sa ba cay nekk am sa wasu lay doon su indee lamar ba it noonu faaw mu am am sa te it am sa ga wasu lay doon su indee seen mastar it faaw mu am am sa te am sa ga nekk waslu boole ci wa ida rajacta boo delloo ilaa amtilatil xismi jëm ci misaali xaaj ba saani bi aj ñaareel li tabayuni li tatabayana ngir nga leerlu nawxa xarakati xamsatil wasli façon masque am sa waslu ga al xiyaasiyati gay ko du xiyaas maanaam masque gay xiyaas aw ci yoon ida jaat neem dikk na fii awal kalaami ci njëlbeen wax ba raayta nga gis ne annaha naka moom mag soorat muñ kasara la fi jamihil afxaali ci mboolem fixal yi wal masaadir yi ak mboolem masdar yi illaa fi amri sulaasi yi ndara ci lamari sulaasi yi ëllës yi ba nga xam ne qabla axiri yi nekk nit njëkk mu jëm nga dammatum dàmm kama fil misaalayni ni mu nekkee ci yaari misaal yi al axirayni yi aju mujj nee na boo delluwaatee nag ci misaal yi ci ligne bi ci càmmooñ ngir nga mën a leerlu ba xam am sa waslu bu nekkee ci bopp wax ja ba nga war caa tàmbali loo ko war a maas da nga seetlu ne am sa waslu boobu li ci ëpp dañ koy maas kasara ndax da ngay seetlu ne su nekkee ci njëlbeenu final bu nekk xumaas yi mbaa sudaas yi am sa ba faaw day kasara bu dee ci masar ba noonu day kasara bu dee ci lamar ba it noonu day kasara fenn képp la ñuy daami am sa gi mooy bu fekkee am sa fu am sa fu nekk ci lamari sulaas yi boo xam ne la njëkk mujj dafa dàmm mel ne ushkur xam nga ushkur lamari shakara la te li njëkk raa gi mooy li njëkk mujj muy kaaf gi dafa dàmm fu mel ne foofu moom boo fi indi am sa waslu da nga koy dàmm ne ushkur ak udkur ji ci topp it noonu la lamari zakara la seetlu nga ne day lamari sulaasi yu te li njëkk mujj muy kaaf gi dafa dàmm kon ba ci am sa di ko tàmbalee da nga koy dàmm foofu képp la ñuy daami am sa waslu lu ko te loolu rek sooy jàng am sa waslu xamal ne kon da nga koy kasara kon loolu mooy takk-takk bi bax de xasa gannaaw lii lam yafqa desul illa an taarifa ndari bu da nga xam rek xamsatal maadi amsak maadi arubaahi yi gu nekk rubaahi yi wa amrihi ak lamaram wa masdarihi ak masdaram ka arsala mel ni arsala yónnee na wa arsil ak arsil na nga yónnee wa irsaal ak irsaal bii firi ak yónnee muy masdar wa haadihi gile xamsatun amsala yom tàqu googu def na tudd bihaa ci moom fii darjil kalaami ci boodee taxañ wax ja watu samma def na ko tudde amsata xataxin amsak xatoon war a des ngir ñu xamal la ko ba nga xam ko mooy boo gisee fihlu maadin mu nekk ñeenti araf te am sa tàmbali ko xam ne am sa googi am sa xatu la soo ci dëggee lamarit am sa ko dina ñëwaat waaye xatu la soo ci dëggee masarit noonu am sa ga ñëwaat waaye xatu la xatu la mooy faaw da nga koy jàngaale moo xam daa nekk ci bopp wax ji moo xam daa nekk ci biir wax ji mu misaale ko arsala boobu ca ba mu dee maadi ak arsil ba mu nekkee lamar ak irsaalam ba mu nekkee masdar wala boo ne woon axraja ca ba muy maadi ak axrij génneel ci lamar ba ak ixraajan yépp noonu la ñuy mel am sa boobu xattu la faaw da nga koy jàngaale mën naa am nag wayu nar a dëng tax ñu woyefal ko ni mel am sa waslu rek ndax way waa tax waaye bu dul loolu moom dañ koy jàng bu wér a wér wa kullul hamasaati mboolem am sa yi allati yi nga xam ne fii awal asmaa yi nekk nañ ci njëlbeen lisim yi hamasaatu xatxin am say xatxu lañu illaa fil asmaa yi ndara ci lisim yi al aati ci aj dikk ba tey mën ngaa takk ne baat boo gis mu tàmbali am sa te nekk lisim boole ci say boo jàpp ne am sa ga am sa xatxu la am sa goo war a jàngaal la faw faw faw ba mu des nag baat yi muy bëgg a andil baat yi moom lisim lañ te am sa yi leen tàmbali am sa wasul la nga bañ caa juum waxee ñoom mooy ibnun bu fi doom bu góor wabnu mun ibnun ak ibnun ñoo bokk wabnu mun ba tey doom bu góor lay firi wabnatun ak doom bu jigéen wamruun bi fi as cam wamraatun bi firi jigéen wasmun bi firi aw tur wastun bi firi njekkikaay waaye munu am sa gi am sa waslu la daa bàyyi ko ci alyumnu bii firi barke moom nag foo ko fekk dañ koy jëfandikoo ci ngiñ def ko muftada dañuy def rek la amrullaahi ak la amru ka yu mel noonu ñoo bokk ci googu wàll di tegtale ngiñ kon benn nga ne ngiñu yàlla mooy sama ngiñ mbaa nga ne barke bi yàlla mooy sama ngiñ nga seetlu ne ibnu mun jee ñu wax ne moo ibnu ñoo bokk prix nuun gi day topp miim gi su miim gi maasee mask ak lonk nuun gi def noonu lu maas rek mu def ko dikk ibnu mun ibna man ibni min was naa ni bii firi ñaar ñu góor was nataa ni bii firi ñaar ñu jigéen baat yi moom ay lisim lañ te am say leen tàmbali am sa waslu la bu ko dara jiitoo doo jàngaale am sa gi ci ñoom ñii bu ko dara jiituwut nag nga door koo jàngaale boo xasee génn baat yi nag moom baat boo gisati muy lisim rek xamal ne am sa ga am sa xatxu la da nga ko war a jàngaale wa kullul hamazaati mboolem am sa yi allati ya nga xam ne fi awali xoroo fi nekk nañ ci njëlbeen araf ya xamasaatu xatxin am say xatxu lañu illaa fii al dara ci al araf woo gis am sa tàmbali ko nekk aw xam ne am sa am sa xatxu la ba mu des al al boobu ñi xam ne moom la ñuy taaraa baat di ko mohrifaale baat am sa ga moom waslu la boo ci tàmbalee jàngaale ko bu ko dara jiitoo doo ko jàngaaleeti ni ki fee nga ne wa kullul hamasaati doo wax wa kullu alhamasaati nga wax wa kullul hamasaati te boo tàmbale woon ci alhamasaatu nag da nga jàng am sa gi ne alhamasaatu bu ñëw ci alxawaidu hamsatul wasli am sa waslu ga am sa am sa la tuusaadu woog def na ko dolli fi awal kalimati njëlbeenu baat ba lii te wassala ngir bu dee fi jottali ko bi xaa ci moom ila nit jëm ci tudd ga bi saaki ni ci aji sukkoon ja am sa waslu am sa la goo xam ne dañ koy def ci njëlbeenu baat ba ndax bañ a tàmbalee masque ak néeg arab yi dañuy bañ a tàmbalee baat masque ak néeg arab yi moom dañoo wutale bu ñuy tàmbalee ci baat ak buñ cay daaneel bu ñuy taxawee ci baat te maasal masque ak lonk mbaa masque ci kaw mbaa masque ci suuf dañ koy dindi dafa masque ak néeg lu nangoo taxawee ci masque ak lonk mbaa masque ci kaw mbaa masque ci suuf waaye nag bu ñu dee tàmbali baat moom duñ ko nangoo tàmbalee masque ak néeg bu naree am rek ñu indi fa am sa loolu seen mbir la wax yow moom am sa waslu woogu tas bitu dana sax fii bat il kalaami ci njëlbeen wax ja wa tas xut te muy rot fii dor ji ci ak taxañam am sa waslu foo ko fekk bu fekkee ne moo nekk njëlbeen wax ba da nga koy tudd bu wér bu fekkee daa nekk ci biir nag doo ko tuddaale wa takkoon dana nekk fil maadi ci al maadi al xumaasi yi buy xumaasi yi wa sudaasi yi ak buy sudaasi yi wa amrihima ak seen lamar wa masdarihima ak seen masdar wa amri tulaasi yi ak lamari tulaasi yi foo fekk fihil maadi mat juróomi araf te am sa tàmbali ko am sa boobu waslu la foo fekk fihil maadi mat juróom benn araf te am sa tàmbali ko ba tey waslu la seen lamar itam moom commencé ak suudaa si seen lamar am sa goo ci fekk rek seen lamar ba tey am sa wasul la seen masdar ba tey noonu am sa goo ci fekk am sa wasul la suudaa si moom bu dee almaadi yi am sa ga ci nekk xatxu lay doon niki amara digle na wala akala boo ci dëggee lamar nag ba noppi ci wóoram am sa ci woo suudaa si bi jàppal ne am sa gon waslu la foofu ngay teqalee fii maat ni bu doonee sulaas yi moom am sax nga ci fekk xamal ne xatxu la da nga koy jàngale faawu faawu boo tëggee lamar ja nag moom am sa dikk xam ne am sa ga waslu la am sa tuqat yi am sa xatxu tas ba tuddoo sax fii bat il kalaam yi ci njëlbeen wax ja wa darji ci akuk taxañam ka xam setil maadi ni ki am sag al maadi arubaahi bay ko jug ñeenti araf wa amrihi ak lamaram wa masdar yi ak masdaram man ngaa takk ne fiiril maadi bu nekk ñeenti araf am sa tàmbali ko am sa googee xatxu la xatxu la mooy faw da nga koy jàngale moo xam da nga caa tàmbalee wax moo xam daa nekk ci biir wax ne ko misaale woon léegi ba tey fiiril maat moom mu nekk ñeenti araf te tàmbalee am sa boo ci tëggee lamar faw am sa ga dellu si te xatxu lay doon da nga koy jàngale faawu faawu boo ci indee masdar it noonu faaw ma am sa te da nga jàng am sa ga xatxu la da nga koy jàngale faaw faaw wa xamasaatil asmaa yi ak mboolem am say lisim yi wal xuruuf ak araf yi maaxadaa baxdul asmaa yi ndari leen ci lisim yi wa al ak al daa wax ne mboolem lisim yi ak araf yi koo ci gis am sa tàmbali ko rek jàppal ne am sa ga xatxu la da nga ko war a jàngaale fu mu mën di nekk moo xam ci biir wax la moo xam ci njëlbeen wax la ba mu des nag yenn lisim yi nga xam ne waxal na la ko ne mu tàmbalee ci ibnun ba daanoo ci was na taani ndax bañ nga juum ca seen am sa moom waslu la du xatoon araf yëpp itam seen am sa xatu la nit ki bi nekk ci aw waaye al danga ko ciy génne al moo am sa gi ci nekk waslu la bu nekkee ci njëlbeenu wax nga jàngaale ko bu nekkee ci biir wax doo ko jàngaale at tamrin al awwal bayin leeralal fil ibaaraati ci wax yi al aatiyati aj dikk hamasaatil wasli am say waslu wal qat'i ak qata maha dikril asbaabi ànd ak tudd sabab ya wax yi mu lay bëgg a indil na nga ko xool bu baax te xool am sa yi ci nekk bu ci nekk waslu nga wax ko bu ci nekk xapp nga wax ko boo ne nangam am sa waslu la wala nangam am sa xatxu la na nga wax lu tax nga ne am sa nangam la yoaddu def na konte masjidu sultaani jàkkay buur ba xasan ibni nasir te mooy xasan ibni nasir min badaihil fanni mu bokk ci wayye muy aar al arabi bi ko ju arab min haysu tisaaxu jawaani bihi ci fumfu yaatu ay koteem wa ihkaamu binaahi ak xereñ ak tabaxam wartifaaxu manaaratihi ak yëkkatiku sororam washtimaaluhu akuk làmboom xalaa kasirin ci lu bari mina nuqoos yi ci ay boyaade wa suxru fi akuk rafet la nga ne mina nuqoos yi ci ay décoré wa suxru fi akuk rafet wa xadib tadaa tàmbali woon na binaa awa ak tabaxam fi naxwi muntasafil qarni ci lu tolloog xaaju siècle ba ak taamini bi ak juróom-ñetteel alhijri yi bi ko jug gàddaay wastamarra te sax alxamalu liggéey ba fii ci moom talaasa sanawaat ñetti at wa anfaqa te mu dépensé fii inshaahi ci ak sosam am waalan ay alal taa'ilatan yu aji am solo mooy yu bari te am njariñ wastaxdama te mu liggéeyloo fii ci moom as sunnaaha way xarala ya almaharata ña di way ñaw fastabaxoo te ñu njëkkante al ijaadata rafetal ga wan sarafoo te ñu wëlbatigu ilal itqaani jëm ca xereña ga fadhab demal ilahi jëm ci moom wa anhim te nga janal an nazara xool ba fii nuqoosh yi ci ay njamam wa saq fii ak palafoom muy xadd ba wanzur te nga xool ilaa humudihi jëm ci ay kenoom wa judraanihi ak i miiram wam tali te nga feese bi maa ca la nga xam ne fii nekk na ca moom min jamaalin ci ab taar wa rawxatin ak tiitlëg taar wastami te nga déglu li maa jëm ci la nga xam ne yul xiisi dana ko sànni fii udduni ko ci sa nopp kul rukkunin bépp côté min arkaanihi ci ay côtéem wala nga ne kul rukkun bépp ponk min arkaanihi ci ay ponkam loola mooy an ay iftaxir na nga damoo bi abaay ko ci say baay inchita ndeem soob na la walakin waaye nag isna jëfal kama sanaxoo nañu jëfe woon nee na jàkkay sultaan xasan ibni nasir dañ koy boole ci buñ dee lim arab yi may gu leen yàlla may li ñuy wax aar lu yéeme lu rafet rafet lu yéeme yéeme jàkk jooju ci la bokk ci yi wane may gu yàlla may arab yi ñu mën a def lu rafet rafet lu yéeme yéeme ci wàllu aar ndax moom boo seetloo jàkk ji boppam ni mu yaatoo ay côté ak na tabax ba dëgëre ak na sorol ba kawee ak lañ ca def lépp ci xeeti décoré ak i rafetal daal yéemu na ni ko tàmbali woon tabax ci téeméeri juróomateel maanaam huitième siècle ci gàddaay gi ba bañ amee juróom-ñaar téeméer ci gàddaay gi ba dugg ci téeméer ju juróom-ñetteel ba ba mu xaaj ca la ko kilifa googu tàmbali woon a liggéey kon neel kilifa googu mi ngi tàmbali woon a liggéey jàkk ji ba huitième siècle xaajee ca la ko kilifa googu tàmbali woon a liggéey kon neel kilifa googu mi ngi tàmbali woon a liggéey jàkk ji ba huitième siècle xaajee ba ñu amee juróom-ñaari téeméer ba dugg ci téeméeru juróom-ñetteel ba mu xaaj ci la tàmbali woon tabax jàkka jooju liggéey bi am na ñetti at door a sotti def na ci alal yu bare bare bare jëloon na itam ñu xarala ñu mën a liggéey ñoom ñoo ko doon liggéey ku ci nekk di njëkkanteeg moroom ma bëgg koo joŋ ci maa lay gën a rafetug liggéey ku nekk rek ne maay dàq liggéey saa moroom ku nekk rek loo mën ci xereñe def nga ko mu nekkoon nag da ngay dem xool ko bu baax a baax xool rafet rafet ya xool xadd ba